allo bismillah bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi man la Maritou fii ci Saveurs Planétaires maa fas yéene waat tey incha allah ci kàttanu yàlla Euh, dellu siwaat euh, ñu defar suñu poulet au gingembre bi def mosoon nañ ko fi defar mais dafa am ñu ma ko laajaat donc euh, recette originale bi sax laal na indi parce que bale ay aile de poulet laa ko defee woon bi yoon ganaar gi ci boppam la donc gis ngeen ni da ngeen di jël ganaar gi dagg ko ay morceaux même bii sax lii nii drumstick bi partie bi mënoon nañ ko daggaat ni pilon bi mënoon nañ ko daggaat ci digg bi mais dañ koy bàyyi ni mu am tuuti jëmm donc dañ leen di dagg ay morceaux yu ndaw ku mu neex nga dindi der bi mais man dama ci bëgg a bàyyi der bi incha allah donc dañuy soxla ganaar ñi ngi fël ak suñu ñaari ganaar dañuy soxla suukar euh, bu ñuy caraméliser yëf yi euh, ci taalaale ci kii bi euh, saafu ganaar bi lii coriandre la coriandre mooy cilantro en anglais moom mooy persil chinois dañ koy woowee persil chinois Sénégal tam yi ay champignon noir la gis ngeen champignon yi ñuy def ci neem yi dañ ko xooj ba mu ngi nii nooy na après dañ koy haché fii ñi ngi fii ak suñu gingembre dafay am gingembre

pour euh, xol ko bo xëccee rek mu ko donc mi ngi ni amande ba ngi nële ki suñu euh, soy sauce la sauce de soja ku mu neex nga jël ñok maam mais ñun sauce de soja bi lañu fas inshallah euh allah mbir mi tuuti xorom rek lañ ci sanni léegi suñu ganar ni ñu ko daggé dañu ñëw jël tuuti xorom ak tuuti poivre euh, def ko ci laal ci tuuti suñu garlic plus bi génne naa ko mi ngi ni ñu njoos ci tuuti rek ci garlic plus bi wicci wiccal ko ci noonu Euh, mu jàpp forme bu ko defee nag ñu ñëw teg suñu kàddu ay bismillah poulet chinois la indi woon tey poulet au gingembre fii ci saveur planétaire bismillah bismillah mbokk yi ci suñ poulet chinois bi ba tey lii ganaar bi tuuti xorom lañ ci wis nii ak tuuti suñu garlic plus nii xorom bi tuuti rek parce que bu ñu fàtte ni ñoom maam bi lañ ci kii léegi gis ngeen fii lu tollook genn wàllu euh, kopp suukar la ñu jël parce que dañu jël ganaar gu bari ñaari ganaar la voilà diwlin bi def ni suukar bi bàyyi mu caraméliser ba nekk caramel ba daj di leen fàttali rek ne ñam bi du saf suukar donte suukar bi mi ngi ci mais euh, ñoog maam ba la ñu koy euh, soy sauce bi ñu koy euh, sauce de soja bi bi ñu koy xoromee moo koy yóbbaale ak ñoog maam beeg tuuti xorom biñ ci sànni voilà léegi li dañuy xaar mu caraméliser bien bon. suñu soble yaa ngi nii commencé nañ ko daggati lële moom tamit mais moom des na buñ demee ba ganaar bi ñor ci lañ koy teg ndànk moom it mu àndandoo daal di jóg voilà léegi lii dañuy mariner suñu ganaar ba mu bien incha allah bu caramélisé ba pare ñu teg ko ci ay mango mango gis nañ ni suñu sucre bi caramélisé na gis ngeen ko ku mu neex na jël sucre bu weex bi de fii dafa fekk na rek ci kër gi sucre bi la ñu gën a utiliser ay bismillah teg ci sa ganaar ndànk aywa ma ngoog mbokk yi gis ngeen nii ganaar gi yëpp teg nañ ko ci kaw caramel bi nii gis ngeen leen nii ñuy def nii du ñu ko yëngal nag nii lañ koy bàyyi ndoxu ganaar bi di génnal boppam caramel bi di kolore euh, en même temps euh, kii bi du ñu fi wëlbati wala dara nii lañ koy bàyyi ba caramel bi jàpp ko yëpp ci lay ñoraale ndànk ci suuf bi dem macha allah du ko yëngal bu léegi en attendant lii di jàpp forme fii moom <laughs> incha allah dañuy ñëw. bu leen fàtte ñu ngi ci ak suñu champignon noir yu ñu war a haché ak suñu laaj ak suñu euh, ginjeer bu ñu war a nokkas euh, suñu amande yaa ñu nele incha donc dama jël jëmm gi ñëw def ci laaj bi ak euh, ginjeer bi laalaale ci persil chinois bi daal di ko fa picc piccal tuuti ku mu neex nga ko teg sa planche nga haché wala jël li ñuy xoosee ko rek jël côté bi gën a sew xoosee ko mais man xam ngeen nag nokkas bi ci gën a ngeen ko laaj bi ak ginjeer bi ak tuuti poivre léegi nak dañuy ñëw daal di def ni moom tamit euh, suñu persil chinois bi tucc tucc ayo ma ngoog ba léegi suñu ganaar gaa ni comme yépp la soobandoo moo tax euh, ndox bi génn ci ganaar gi day bari donc du gaaw a muus mais nañ ko bàyyi ni ñuy ñor ndànk di muus ni muy fuuree nii tamit bu mu paniqué loo kenn euh, surveiller sa kàddu rek incha allah ndox mi génn ak caramel beeg yépp ay continuer nii di fuur bi dem kenn du ko yëngal nag nii lañ koy bàyyi waaw nii lañ koy bàyyi ba mu dem Euh, ba fer ndox mi génn mi génn génn mu fer ba wow ñu soog a nag euh, wañaar ko tuuti dal ko wañaar noonu rek nii rek noonu rek ci roq yi après euh, incha beneen côté bi tam daal di jël léegi gis ngeen fii suñu nokkas pare na suñu nokkas baa ngi nii mooy suñu persil chinois bi coriandre bi mooy cilantro bi ak suñu ginjeer ak suñu laaj ak suñu tuuti garlic clove bële tuuti poivre léegi fii nii laay def moom tam mu neex nga jël sa planche haché ko comme mën nga def nii gis nga ko moom tamit champignon bu tuuti tuutal nañ ko nii mu féete boor amande bi mun nañ ko teg ci pool euh, rostu ko tuuti comme mun nañ ko ci tëmbal mu ànd ak ingrédients yëpp daal di jógandoo ku am allergie ci amande wala dara ku ko bëgg mun nga ko ci bañ a def dafa fekk ne recette originale bi daf ko am rek léegi ba tey fii ba léegi euh, laalaguñu ci soy soos bi teel na incha allah damay ñëw génne sama hoisin soos bi tamit laal ci tuuti ndax hoisin sauce bi moom beneen cafka boobu nag moom ci sama yëfi bopp la bokk bokkul ak recette originale bi man maa ko fas yéenee hoisin sauce tuuti rek xaar ma ñëwoon bismillah bismillah mbokk yi gis ngeen léegi nag mën nañoo commencé yëngal gis ngeen nii gis ngeen nii mbir mi voilà léegi yëfi fuur na ba muus boo ko mën nañ ne ganaar bi daanaka ñor na ci lii léegi li may def kon quantité bi may togg dafa bari damay seppi ganaar bi daal di dolliwaat tuuti suukar bu caramélisé waat pour euh, lële soble bi tuuti rek pour mu yëkkati soble bi kon ça après ñu boolewaat leen lépp incha allah parce que bi may def dafa bari te erreur bi ma def mooy kàddir bu ndaw bi laa jël voilà kàddir bu ndaw bi laa jël léegi xaar leen ma ñëw euh, seppi ganaar bi tegee na leen daal di tiital soble bi tuuti suukar rek laa ciy sànniwaat ñu jóg rek pour soble bi tiitaat après nañ di ñu paree ñu boole yëpp daal di jël si ñii bi yàbbee ne ñoom it nokkas ak ñoom seen loolu mu àndal boole leen ñoom ñëpp ne leen rend ci biir gis ngeen nii desi tuuti tuuti caramel bi desoon nii ci suuf li ñu saate woon ganaar bi ñu seppi na dama ci dollu tolloog ñetti bekk suukar rek gis ngeen ko ni ay bismillah ñu so bismillah mbokk yi soble bi dama mujj jël cin bu gën a mag bi sotti naa yëpp fii léegi dañuy bàyyi ni soble bi jóg moom it ba jàpp forme ñu jël ndànk suñu euh, ganaar bi daal di ko ci tegaat incha allah daal di jël nag suñu euh, champignon noir ba la ñu tucc tuccaloon noonu haché ko def ki daal di jël suñu nokkas def ci daal di jël suñu ñog maam nag euh, suñu sauce de soja daal di ci laal fas yéene ci laal tuuti ci hoisin sauce bi tam maa ngi ñëw léegi génn hoisin sauce bi. amande baa ngi nii ñuy roast fii ci pool bi dañ koy tiital noonu rek léegi gis ngeen fii soble bi tiit na gis ngeen ko léegi li ñuy def commencé na génn ndox ndox mii lañuy ñuy bañ mu rëccu ñu donc li ñuy def dañuy jël suñu lii tëj ñoom ñëpp ñu àndandoo jóg jël yeneen ingrédients yi desoon yëpp ñu bi yaaba gi nekk ci réel góore waay jël leen ñoom ñi rek ne leen pëy ci biir <laughs> boole nag jaxase ba mu jaxasoo gis ngeen ni suñu ooy suñu sotti maa ngi ñëw léegi jël ci ñaari kuddu rek incha allah su ko defee nag ñu jël ñoog maam bi lu tolloog taasu attaaya defa gum ko daal di bàyyi yëpp toqi toqi jàpp forme ñu mos xool fan la toll ñun suñu njaxas ñu yëpp di dem ma ngo ooy suñu soos bi ñëw indi ko fii ci ñoog maam bi ci euh, soy bi maa ngi juum rek ku bëgg mën nga def ñoog maam tam loolu gis ngeen ko nii mooy soble bi ay ma moom la ñuy jaxase nii ak ci ooy ci neex ku mu neex nga yem ci ñoog maam keese ak koy xorom ñu bàyyi leen ni ñuy dem ci kanam ñu mos xorom bëgg kaan nga tëmbal sa ay doomu kaan yi wala sa nokkos bi nga nokkosaale sa kaan ku ci nekk rek ñoo ko bëggee voilà ku ci nekk ñoo ko bëgg léegi ñu xaar lii ñor bismillah mbokk yi suñu poulet chinois baa ngi nii jàpp forme daanaka li ci des bareetul incha allah ñu fay gaz bi su koy wàññi def ko foofu bu ndaw yi tuuti rek voilà mëngoo allah teg naa ci léegi amande yi. waaw ah, bismillah bismillah mbokk yi lii lañ leen indiloon tey fii ci saveur planétaire muy suñu poulet au gingembre macha allah gis ngeen ko nii. Euh, boole nañ kook suñu ñànk tang ceeb bu dijj bi sànni suñu tuuti euh, coriandre ci kaw noonu rafetal ak suñu euh, almande yi ñu ci laal muy amande yi Euh, daal di xëcc laaf weeg euh, juróom stick bi <laughs> ci tànku ganaar bi macha allah gis ngeen ni suñu soose ngi ne la ku mu neex mën nga ko bàyyi mu gën a caraméliser nii euh, lépp mi ngi dépendre ci caramel bi ci début bi rek suñuy baguette ngi ayo bismillah donc li la leen indiloon tey di wax rek nekk ku soxla vidéo complète yi incha allah mën nga ñu topp ci suñu page saveur planétaire ci youtube bi di leen ñaan ngeen aimé tey partagé it salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu marietu bon appétit